waa xam nga boo xoolee commune de Biscuiterie 4 kilomètres carré la réyul ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñu ñëpp xamante nañu waaye loo gis rek day am tàmbali te tàmbali boo gis dafa am fu muy commencé lii du ne guleet daan umulom daan na ko def waagu ñaay te loolu boobu lii xewagul umulom mu baax mi daan na def lii waagu di toggal daara yi kenn du ko yëg di dimbali ay nit te kenn du ko yëg kon tey jii bu demee ba ñu créé fédération des daara ñu jiital ko ci moom daf ko présidente kon euh, kon nag euh, sawaay mooy tubaab dellu na pari loolu mooy tubaab dem na pari kon waagu ñaay bentali cité bi saab lëm gi euh, zone zone industrielle bopp ñëpp ci ñaa biscuiterie la ñoo bokk ndey ñoo bokk baay buñ defee waañ bi waagu ñaay teewul danañ jël bool yi yóbbu ko ci daara yi nekk cité bisaab danañ ko yóbbu bentali danañ ko yóbbu bopp danañ ko yóbbu zone industrielle danañ ko yóbbu fii dafa di fu rek munoo fa teg waañ di togg day nuru sax juboo day mel ni sax juboo amul bu déwénee bëgg nañu mu gën a yaatu ndax oustaz àlla mu baax mi nekk fii day ñaan yàlla rek mu kàttanal ko ndax moom doomi daara la te ci këru daara la juddoo ndax maam ali Niang bu bu doonee sa maam di sa turandoo maam sa maam Moustapha Sarr di sa turandoo di sa maam di sa maam kon kooku lu mu lu mu def ci daara rek mooy dafa delloo mbàtt ci ci mbooy mbooy ga ndax àll oustaz Alioune Niang daara lay nooyee alxuraan lay nooyee moom la bëgg moom lay dox moom lay wax guddi ak bëccëg kon ren jii lii am na déwén incha allah day ñaan ñetti nag la ren déwén ñu am fukki nag quartier bu nañu yóbbu fa nag danañ dem ba incha allahu rabbi koñ bu ne sax ñu teg fa nag ndax bëgg nañu koñ bu ne mu am ndeyu daara ndax xale yi daara yi bañ a yalwaanati bañ a bañ a bañ a bañ a taxawaalooti mën a concentré wu ci seen njàng alxuraan mën a concentré wu ci seen diine mën a concentré wu ci jub ndax ëllëg dëkk bi jub nekk ci loo xamante ne ay xale yu baax la ñuy doon kenn du ci tojati di sànni ay xeer di dem loolu yëpp am jot la waaye bu ñu jàngalee xale yi ba ñu am xam-xam jubal jàngal leen jub organiser leen waxtaan ak ñoom ci fam ci biir kër yi ah yaakaar naa yu bëri xew dootul xew ati waaw li nga ñi nga xam ne nag ay bonne volonté lañu ci biscuiterie yi bari nañ fi lool bari nañ fi lool dama laa wax léegi léegi kenn koo xam ne kenn la ci ci lislaam waaye kenn la it ci réew mi kenn la ci biscuiterie yi muy Mamadou Ndiaye ak As Ndiaye ak Bamba Ndiaye seen mag. ñooñu loo woote ci diine ñu fekk la ci bëgg nañ def waaye bugguñu bëgguñu ku yëg lu ñuy def sutura la ñuy defee lu ñuy def ci suuf lañ koy def ñu ngi dimbali école bi ñu ngi dimbali daara yi ñu ngi jàppale néew ji doole yi ci suuf te kenn yëgu ko ñu mel ni ñoom bari nañ ci biir commune de Biscuiterie yi ñi bëgg def te te xamuñu fu ñuy jaar bu ñu fexee ba am numéro al oustaz ñaŋ Niang wala Umu Lom ñu lépp lu ñuy def ñu jaarale ko ci ñoom. dana nekk ci sutura te dana yegg fi mu jëm ndax kat ku suur moo neex a bokkal te ñooñu dañuy jël seen alal di def ci diine kon loo leen jox tam nañ ko delluwaat ci diine. waa jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk commune de Biscuiterie ñëpp jigéen ñëpp ndeyu daara lañ ndax ku jur doom rek ndeyu daara nga kon ñoom ñëpp nañu booloo mànkoo doon mbokk ndey ak baay topp ci ginnaaw ajaratu umulam ñu àndandoo ñoom ñëpp ndax lii du politique du dara diine la. lislaam la yàlla rek lañ ciy wut kese yàlla rek lañ ciy wut ak yonent bi liggéeyal seen bàmmeel liggéeyal seen yomal xiyaam liggéey seen àlla àdduna lool rek lañ ci jublu puukure amu ci leneen amu ci ba loolu moo tax sama waa ji Mouhamed Djibril Wade sax bëggul sax taxaw di wax ci télévision lii nga xam ne def na ko ndax bu yëgoon bu sañoon kenn du ko wax ndax moom il est très discret li muy def ci social di ko def ci lu baax di ko def ci réew mi di ko def ci gox bi di ko def ci fépp bëggul sax ku ko tudd loolu moo tax musul nangoo taxaw ci kanamu caméra di wax def naa lii wala wax naa li waaw moom nag mi ngi nuyu ñëpp mi ngi jaajëfal ñëpp mi ngi sant ñëpp di wax ne li mu def moo yéen a ko bokk yéen a ko moom mu delloo leen ko ndax yéen a ko jiital te ba mu ba ngeen ko jiitalee jour boobu la nekk seen jàmm doon seen baay Fall di liggéeyal commune de Biscuiterie ñu ngi sant ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.